am na ñenn ci ñun ñu ñu xamal ne ñoom jotuñu seen salaire waaye xamaguñu ñaata la ñu toll ñi ngi évaluer pour xool ñan ak ñan la pour xool nan la ñuy taxawee ñoom waaye nag am nañ ci yaakaar ne salaire dañ ko delloo parce que jurisprudence la ci dans la fonction publique sénégalaise que syndicat bu xeexee ba egg ak fenn balaa ñuy reprendre dialogue bi duñ koy duñuy delloo seen salaire te gëm naa ne fu mu nekk nii ñun jàmm la ñuy dox ministère jàmm lay dox état bi jàmm lay dox kon lii gën a yomb daal lii gën a yombal jàmm jooju mooy ñu delloo ñi nga xam ne dagg nañu seen salaire ñu delloo leen ko wala ñi nga xam ne ñoo suspendre seen salaire ñu delloo leen ko mais ak lu ci mënti am rek ñun ñu ngi koy évaluer bu ñu demee ba gis am na benn taxawaay bu ñu ci taxawee nañ ko wane ba ñëpp xam ko. léegi li forum civil wax ah man de li ñuy wax rek. mbir moom bu ay nit ñi bokkee dañ koy pencoo pencoo bi nag ñoo xool nan lañ koy tuddee mën nañ ko tuddee euh, conclave mën nañ ko tuddee assise mën nañ ko tuddee lël ñoo xam nañ koy tuddee mais na nekk rek waxtaan yoo xam ne pour defar la bu dee waxtaan boo xam ne day jur indépendance de la justice jur amélioration de la qualité du service public de la justice ah loolu lu baax la loolu moom duñ koy duñ koy rafetlu rek